affaire yi day bàyyi kenn mënul xam ni mu dal parce que dama demoon géej moom ba teer moom xëyaat dama géej forcé que mu dal nu si mun teer man moom si guddi gi la ma dal moom waaw mu jëndal mu ñëw laajte mu ne booy la dal quoi. no ay picc la génnoon ak lo ak yi ak tànk yi tànk yi daa bañoon te tamit doo xar tamit doo mën a dox quoi doo mën a dem non lii moom daa mel dafiy doog am moom parce que ni nga ko fi doog gis daal man ni mool yi daal ba mu diree dem géej ba léegi moom ni nga fi doog gisagum daal. daal affaire bi daal nekk na loo xamante ne nii ñun Dakar lañ jóge nag quoi Dakar lañ jóge mais fii lañ affaire bi arrivé quoi affaire bi daal day génn sa yaram yi sa kanama fu ne lay génn sa yaram yi boolekat di isan isan yoo xamante ne nii doo comprendre quoi xool nañ ba sonn quoi mais mënuñ trouver la moom dafay war bi dëgg yàlla moom. man de ah ah, moom man moom damaa jàpp nii picc yi doon jaar si gaal yi ay zaari sallir façon yooyu daal doon ñu fekk si gaal gi du ñu sonal man moom yooyu laa jàpp quoi ne ñu war a arrivé quoi mais bu dul loolu moom parce que moom ah peut-être mën na nekk benn virus bu nekk ni day laal suñu mbaal yi muy répondre suñu yaram yi quoi ñaar yooyu daal laa ni benn la si war a doon nag sama xalaat bu gàtt man. mais ñun dañoo mënta sax dem ñun ñun ñoo arrêté suñu bopp ñun ñun moom wax dëgg yàlla moom fi mu ñu fekkoon ñu toog fii fi la ñëw nu déggoo ñun suñu wàllu ko ñun ñoo arrêté suñu bopp ñun feebar bi moo ñu arrêté feebar bi moo ñu téye fi presque deux semaines a ngi nii mënuñu dem nga dañuy toog.